Seex Abdul Ahad nangu laa tuwaale ci barke Seex Bamba mi sab jubaale ba mi feeñ fa njaareem yamook bal sasin la lislaam ñu waaw kay ganam yegsi na sëriñ bee ko tànnal turam wii mu yor mu doy sëkk xarbaax mbiram biiru na Seex Abdul Ahad ki jël Mustafa def mu gan ci mbindeef tofal bamba xaadim mu fal seyxuna Mbaye Sarr am na kàddu yoo xamante ni war nga ko ci mën a sànni asalaamaaleykum ñu ngi lay nuyu waaw kàddu yi de moom yomb na jafe na yomb na jafe na ndax yaa ngi gis mbooloo mi bisu sëñ Abdou bisu jullit ñëpp la rawatina ci ñun murid yi murid bu ne jëfal na la loo xam ne jar na tey nga bàyyi lépp taxaw ci bisam sëñ Abdou Lahad Abdou ñëpp la du ab sëñ Abdoulaye Tom murid rek fu jullit ne ci àdduna bi ci kaw suuf la doomu aadama jëfal na lu ko jaar yàlla nañu ko yàlla fayal yàlla nañu ko yàlla fayal li nu bëgg a wax lépp wax di yàlla du nu ko mën li suñu xol mënuñu koo génnee xanaa sant rek jërëjëf. jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf. bismillaahi rahmaani rahiim ma samay kàddu sëriñ bi ci wàllu rek euh, cant. Mm. kon alhamdulilah rabil aalamiin sëñ Abdou Lahad nag. kenn ku nekk euh, am nga ci sa màggalu bopp mhm. kenn ku ne mënoon na koo baasal kenn ku ne mënoon na ko tàntal ndax moom bari na looy gis tey ci yoonu murit euh, bu dee doom mooy moom mooy baay ba sëñ Muntaxa moom mu ngay wax euh, jaar naa ak moom foo xam ne waxoon ci képp doy na sëkk may wax sama digg ak moom ndax daf may yóbbaale sëñ Abdou Lahad liggéey na ci Sénégal loo xam ne liggéey ci yoonu murit loo xam ne liggéey ci lislaam bi loo xam ne ñëpp a ko bokk defe na ko it noo xam ne lu ni gën a yéeme ci àdduna mooy dafa naturel ci moom defe ni mu ko def dafa naturel nga xam ne dafa mel ni lu yomb ci moom la woon mais ndax jagle ga loolu kon man tey jii eh, ñii ma ne ci sama ginnaaw rek boo leen gisee xam ni eh, liggéeyu sëñ Abdou Lahad eh, moo ko waral ndax tabaxi ay bâtiment ak lépp li muy baax yëpp ak i école ak i jàkka li muy baax yëpp defar nit rek la te boo ko xoolee tey ji loolu defar ni dama gën a jafee ci jànkatu tubaab mu fekk nu université mel def melal nu nii kooku ku la am na payam ci ci ñun ñii am wax wax na lu ko neex yàlla rek ko mën a fay yàlla nañu ko yàlla fayal ci barkeb sëñ Touba bis bii nu yàgg fee ñëw yàgg fee fekk señ si doomam ju baax ji ñu ànd ko di ko doxal ci lépp nu ko bëggee euh, ba mu àgg ci ni mu ko bëggee ñëpp ñu ñu ñu ñu delluwaat ca liggéey bi li ngay dénk taalibe yi ci liggéey bu rëy bi nga liggéey barki démb ànd kook sëriñ Muntaxa ah ñu yàlla ñaan yàlla saaw ni yewoo rek fexe doon ay mu doon ay murid saadix na xam naa moom rek la ci bëgg hmm. bëgg ñu doon ay murid saadix rek hmm. boole ko ci murid saadix lépp na hmm. ci jaamu yàlla gi ci taalibe gi ci njub gi ci ragal yàlla gi ci ci bëgg lu baax ak di moytu lu bon loolu rek la ci barke Seex Bamba mi sab jubaale ba mi feeñ fa njaareem yamook bal sasin na lislaam ni waaw kay ganam yegg si na sëriñ bee ko tànnal turam wii mu yor mu doy sëgg xar baax mbiram biiru na Seex Abdulaay ki jël Mustafa def mu gan ci mbindeef tofal Bamba xaadim mu fal seyxu na su duniyaa defoon kër gu ñàkkul solo